leen nuyu toute la presse euh, li taxoon ñu woo mooy ne dañu nekk ci jamono yoo xam ne manipulation désinformation daf ci bari donc foog ñuy à chaque fois gindi suñu concitoyens dégg nañu sànq ay déclaration de Ousmane Sonko notamment ñuy expliquer ñoom li leen dal bu ngeen ko dégloo def naa ne explication yi gudd na waaye bu ñu ko tënkee mooy ñoom ca seen biir xaw ma nag nu ñu ko doxalee ndax seeni mbir la ñoom waaye jàpp nañu ne seeni erreur rek ñoo xam ñoo ko teyoon wala teyuñu ko ñoom ñooy responsable loolu mooy premier enseignement bi ñuy tiré sénégalais yi war ko xam kon loolu li mu firnde mooy accusation yañ doon def contre l'administration loolu wane nañ ñoom ci seen bopp ne l'administration n'a absolument rien à voir avec leur turpitude l'administration n'a fait que respecter la loi looloo indi nanguwuñu seen liste bi nga xam ne moom lañu ñu déposé ci Dakar def naa ne ñoom joxe nañ ci explication yu leer kon ils n'ont qu'à se prévaloir de leur propre turpitude xamoon nañu ne suñu administration c'est une administration compétente qui a organisé des élections dans toutes les circonstances ndax ñoom ba ñuy gagné fii bu yàggut c'était la même administration elle n'a pas changé elle a appliqué la loi kon il faut que sénégalais yi aussi ñu leen di wax la réalité des choses direction générale des élections administration dafa waaye ñun ba ñuy dem di déposé en tant que Benno Bokk Yaakaar fekk nañ fa société civile mu toog du ñoom rek ñoo fa def toog c'est commission où la société civile est assise def naa ne loolu it lu Sénégalais yi war a xam la kon leer na bu baax ci bopp ñépp ne administration n'a rien à voir seen yoon newul ci ay ñoom ñoo togg seen togg ñoo seet nag lañ ca bëggoon a def ba mu indi leen lii mu leen indi loolu il faut que mu leer bu baax a baax a baax euh, ci boppu ñépp moo taxoon ñu bëggoon vraiment àddu ci kàddu yooyu parce que nag aussi c'est pas parce que l'information maintenant c'est démocratisé tout le monde a accès aux réseaux sociaux que mën nañoo nax sénégalais yi sénégalais yi kenn mënu leen ay ñu yeewu lañu ñu yor seen xel lañ waaye ñuy wax ak ñoom aussi daf ci am solo ak ak fii ñu toll nii administration daf koy administrer mais am nañu système boo xam ne ku ne def nañ ko de manière inclusive ba société civile toog ku ne jaar par le même processus Benno Bokk Yaakaar nag dafa jaar par le processus respecter la loi loi li mu wax te des associations de mouvements de femmes xeex ci les démocrates mooy dañu war a am des listes paritaires loolu la loi wax ku teggi loi nag mais mënuñ la koo nangu loolu aussi def naa ne ils apprendront leur leçon certainement pour la prochaine fois donc halte à cette manipulation bi ñu doon wax naan administration et cetera ak di tudd ku ne nous dénonçons d'ailleurs toutes ces euh, c'est difficile sax à qualifier mais c'est des injures en direction de nos institutions kenn desul des ngeen leen institutions yi ñun ñoo ko moom ñoo ko bokk ñu ngi fi depuis 1960 li ñu war a jox comme exemple suñu jeunesse bi mooy ñu respecter nos institutions ñu respecter la justice ñu respecter les forces de l'ordre ñu respecter la première institution du pays le président de la République donte sax xëy na du ngeen bokk xalaat ndax réew looloo indi Sénégal ba fi mu toll bu doon un pays stable dëkk boo xam ne xëy na suñu habitants yi bëriwuñu ndax 17 millions rek lañu waaye foo tudd Sénégal ci àddina ñu xàmmee ko ràññee ko ndax le respect bi nga xam ne ñun Sénégal sénégalais jox nañ ko suñu propre institution. kon ñaawlu nañu pour des raisons politiques et politiciennes. ñuy yëkkati yu ñaaw di ko teg ci vraiment ces institutions la loolu dañu koy ñaawlu bi appeler la jeunesse aussi ñu xam ne ñoom réew mi booy seet ñoom ñoo ci ëpp on les appelle à la responsabilité ñu bañ a topp wala dégg ces manipulations la ndax réew mi seen réew la tey ak ëllëg donc dañu war a ànd ak ñoom tabax ko dans le respect de la démocratie dans le respect des institutions ñu bañ a nangu ñu toog ñu leen di woo ci fitna bu ñu ko nangu ndax nit nga doo dem tëju ca sa néeg defar say liste mu indi la njombe nga ne doomu jàmbur yi ñëw leen ci mbedd mi lu leen ci fekk nag seen problème lay doon nous appelons cette jeunesse à la responsabilité bu leen nangu benn politicien di leen dugal ci njombe boo xam ne bii ëllëg ak si biir fële lay taxaw di leen seetaan Sénégal ci ay sart la tëdd incha allahu rabbi dégg nañ nag bravade bu nekk li tubaab naan bravade mais incha allahu rabbi les élections se passeront comme elles se sont toujours passées dans de très bonnes conditions ñun Benno Bokk Yaakaar defe naa ne amul ku ñu mën a impressionné donc wax ju bëri jéeg waa fëgg dënn beeg ca urne ya lañ koy natte le 31 juillet ca urne ya donc looloo taxoon tey ñu bëggoon vraiment woo leen waxtaan aussi ak sénégalais yi wax leen ne danañu dem ci ay élections incha allah sans fitna parce que nag aussi force va rester à la loi force va rester à la loi nanu ko daan defee nit ñi dem wate ji ñibbi seen kër ci gagné gagné te am nañu yaakaar ne Benno Bokk Yaakaar mooy gagné largement je vous Ce qui concerne le parrainage, vous savez, ici, il n'y a que des militants sérieux qui ont fait un travail sérieux. Oui. très important à dire. Non grands militants ont suivi scrupuleusement, ce que la loi nous recommandait de faire. Nous avons soumis nos parrainages et ils sont très nombreux. On aurait pu aller et déposer plus de 2 millions de parrainages qui sont là dans les cartons. Nous les avons soumis

Et la loi est très claire. Si vous dépassez ce surplus, il est nul et non avenu. Donc notre parrainage, on s'en désolé d'ailleurs pour cette personne, est considéré bon, comme nul et non avenu. Mais je vous invite à venir visiter ici notre bureau du parrainage. Nous l'avions exposé ici, les caisses et les caisses de carton de citoyens qui volontairement, avec enthousiasme, ont voulu parrainer la liste de la coalition Benno Bokk Yakaar en court et en long c'est ce qu'on appelle de la stratégie d'enfumage quand vous avez des problèmes gros comme ce que vous avez entendu tout à l'heure des politiciens aguerris qui ne savent pas qu'une liste doit être paritaire dans ce pays évidemment il faut que vous trouviez quelque chose à dire

à vous parler. Voilà le secret de la coalition Benno Bokk évidemment qui s'appuie, qui s'arc-boute sur l'excellent bilan du président Macky Sall. Oui. Évidemment, vous dites qu'il attaqué Ousmane Sonko, en l'occurrence, la Sénat, mais il a insulté tout le monde. Il a insulté l'administration, les magistrats, les policiers, la Sénat, tout le monde. Et vous pensez que c'est comme ça, là, qu'on va gérer un pays Le programme d'action, c'est les insultes. Mais les gars, aucun jeune, aucun jeune ne sera convaincu par ça. Aucun jeune. Nous les attendons sur le terrain des idées, des propositions et des programmes. À la place, tout ce qu'on entend, ce sont des insanités. Et nous le déplorons fortement. Et nous les appelons à retrouver la raison. Voilà ce que nous pouvons vous dire sur cette question.